asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla gërëm suñu mbokk journalistes yi ñu ñëw tey pour euh, couvrir suñu point de presse ngeen may ñu ñu nuyu sénégalais yu nekk fii ci biir réew mi ak yu nekk bitim réew mbokk yi nag ginnaaw bu ñu yàlla mayee ndam ci élection législative yu ñu amoon le 31 juillet 2022 mu nekk ndam bu kenn du laam-laame ñu xalaat ci suñu gis-gis bu gàtt que élection yi jàngat buñ ci am mooy lu ñu waxoon Sénégalais ci élection yi mooy président Macky amatul majorité ci biir réew mi te loolu moom ba Sénégal doone Sénégal ba tey loolu c'est la première fois ci histoire politique Sénégal président nekk en exercice te bañ a am majorité ci assemblée nationale lu ko waral ñëpp xam nañ ko mooy puukare bu président Macky Sall nekkee ci réew mi ak njabootam jaay doole bu président Macky Sall di wootee ci réew mi ñàkk ormal démocratie bu président nekkee ci réew mi ak ñoom seen loolu moo waral tey askanu Sénégal wane full ak fayda jël nag seen yaakaar dénk ko intercoalition Yewwi Wàllu mbokk yi ba ñuy campagne dañu jëloon engagement ci askanu Sénégal ne leen ginnaaw bu président Macky Sall nekkee minoritaire ci biir dëkk bi ñu ngi sàkku ci yenn mbokk yi ci yar ak teggin ci jàmm ak salaam ci yéene ak yaakaar ngeen jël seen majorité ngeen dénk ñu seen majorité ñu toggal leen ci assemblée nationale toogaay bu am fulla ak fayda ak yéene ak yërëmande ànd ci nag ak pas-pas ak yaakaar mbokk yi ngeen may ma nag ma yëgal leen ak mbégte su ma yéenewu nekk candidat suba incha allah lundi le 12 septembre 2022 ci poste président wu assemblée nationale bu Sénégal mbokk yi mbégte boobu nag mbégte bu yaatu la parce que nga nekk ci coalition ëppoo fa xam-xam ëppoo fa fit ëppoo fa engagement politique ay leader tànn la loolu dañ ci sant yàlla moo tax ngeen may ma ma gërëm ma sant conférence des leaders coalition Yewwi Askan Wi mbokk yi nag assemblée nationale bi su ci yàlla àndee nuñ ko fas yéene doxalee mooy lu sénégalais yi namm ci assemblée nationale du Sénégal mooy ay député yuy toogal seen askan te bañ a fa toogal président de la république ay député yu nangu toogal seen askan te nangu di contrôler daanaka di saytu lii di gouvernement bi di liggéey ay député yu nangu tamit di voter moo xam ay projet de loi yu bàyyeeku ci gouvernement bi wala ay proposition de loi yu bàyyeeku ci député yi wante ay une fois de plus ay texte de loi yuy jàppale askanu Sénégal yuy dimbali askanu Sénégal yuy défendre askanu Sénégal moo tax assemblée nationale boobu ñu bëgg mu nekk assemblée nationale buy mën a garantir lu ñuy wooye séparation des pouvoirs wante Macky Sall di bëgg a nekk ci dëkk bi di buum du ak di mi loolu moom dafa nar a dak Sénégal moo tax ñu ne assemblée nationale boobu day nekk assemblée nationale buy may makisal Sall mais buy xeex tamit ba askanu Sénégal tamit am aafiya bay nekk assemblée nationale tamit buy def kem kàttanam ba justice sénégalaise tamit am tamit aafiya pour sénégalais yi di ci mën a gis tamit seen bopp day nekk tamit assemblée nationale mbokk yi assemblée nationale bu ñu namm gis ñun mooy assemblée nationale buy tegaat lépp ci yoon daanaka dund bu cher bi ala kulli al nguuru Macky Sall dinañ ko teg ci suuf incha allah dund bu cher bi lu ko waral ñépp xam nañ ko mooy état bu namm surtaxer le quotidien de sénégalais te ci campagne bi joxe woon naa fi benn exemple nee naa Sénégal lépp lu ngeen laal senegal lu mu munti doon nag su doon jar 100 francs da ngeen jàpp ni ni que 50 francs ba 60 francs yëpp ay taxe la te lu koy firndeel dañu jëlee exemple essence oto buy jóge ba Mali daw ba senegal te amul chargement ñëw fi port de Dakar yëpp fi gasoil wala yëpp fi essence delluwaat Mali su ngeen demee tey Mali litre super wala litre gasoil moo gën a yomb tey ba Bamako ko fii Dakar kon dund bu cher bi te lu ngeen mënti laal moo xam ceeb diwlin suukar lu ngeen mënti laal noonu la mbir bi tëddee kon ñu ne loolu dinañ ko xeex leneen tamit lu ñuy lu ñu fas yéene xeex ci assemblée nationale mooy bépp loi bépp décret bépp arrêté bu président Macky Sall ak nguuram jël te muy lor askanu Sénégal su ma xel ngi dem ci lu mel ni la vente de l'hôpital Aristide Le Dantec man Barthélémy Dias kenn dégguma ci biig rek maa ngi dégg jaay nañ benn benn genn wàlla université bu Dakar man Barthélémy Dias kenn dégguma ci parce que nag lu ëpp tuuru te wolof njaay nee na fulla nag mooy jaay daxaar dama ne askanu Sénégal du ñu dénk seen baat ñuy am xel ñaar ci taxawaay bu ñuy am ci assemblée nationale lépp lu président Macky Sall def ci ay licence de pêche na xam ne ni moom rek la engagé parce que dama ne wolof Njaay nee na balaa ngay laax jaay nga laax lekk te askanu Sénégal dañu sonn dañu tay ci Macky Sall ni mu nekkee ci dëkk bi foog ne ni dañ ko dénk moomeelam te dañ ko dénk moomeelu askanu Sénégal mu bañ ko waxtaanee bañ ko pencoo ne da koy aakimoo ne da koy pàccoo ak ay mbokkam loolu nag dina dakk moo tax mbokk yi ñu ne suñu candidature bii dañ ko fas yéene fësal suba incha allah ñuy sàkku ci député yi moo xam ñu nekk ci opposition moo xam ñu nekk ci majorité parlementaire parce que ma bëgg a wax ji leer par parlementaire nekkatul ñun parce que président de la république bu amul majorité koo ko wax dëgg yàlla su amee ay mbokk na mbokk mi wax ak moom kon nag député yu nekk ci opposition parlementaire xam nañ seen bopp malheureusement dañ leen tëj ci benn hôtel depuis ñetti fan wax dëgg yàlla regroupement nawetaan sax amul loolu regroupement nawetaan daal ci gàttal sax da ngay ñëw ci suba si rek ngeen añ après ngeen dem football yi wante regroupement ñetti fan moom loolu lu muy wane ni day wane ni que président Macky Sall dafa jaaxle dafa tiit te yoratul majorité ci assemblée nationale ñu ne assemblée boobu mbokk yi lépp luy koom-koomu Sénégal lépp luy richesse bu sénégalais yi am dañ ko fas leeral pour sénégalais yi xam ne exactement loolu lu mu toll ci koom-koom ak lan lañ ci mën a liggéey. te dinaa leen jox benn exemple mbokk yi wax naa leen exemple hôpital Aristide Le Dantec xam ngeen lu nopp mënul dégg ak lu xel mënul nangu mooy dëkk bu am pétrole dëkk bu am gaz dëkk bu am zircon ñu nekk pour tabax lu mel ni hôpital fokk ñu jaay genn wàll hôpital gi pour tabax hôpital bi loolu wax dëgg yàlla ñàkk yéene ak ñàkk yërëmande mënul weesu loolu mbokk yi nag ñu ne assemblée boobu nuñ ko gisee nuñ ko nammee mooy nu ko sénégalais gisee nu ko sénégalais yi nammee mooy yàqal président Macky Sall taxuñu jóg parce que président Macky Sall ñortuñu parce que nag wax dëgg yàlla lu sénégalais yi def le 31 juillet 2022 ku mu doyut leneen du la doy kon suñu taxawaay xam nañ ko mooy gunge gouvernement Macky sàll ci lépp luy intérêt la sénégalais wante lépp lu ngeen xam ne ni day lor askanu Sénégal dañ ko fas yéene xeex te teg ko ci suuf ci fulla ak fayda ci yar ak teggin ci yéene ak yërëmande ci suñu askan ak yaakaar bu askan bi am ci ñun kon nag mbokk yi loolu laa bëggoon wax ci gàttal ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal askanu Sénégal yàlla na leen yàlla gën a yokkal sutura yàlla na yàlla xeeb dolli lu mu teg senegal tey ci jàmm te leen di jox dig daje incha allah suba ci assemblée nationale du Sénégal di bëgg nag am leneen ak lu ma ci yokk dama ne. ñun nekkoon nañu ay député ci assemblée nationale du Sénégal ñu may waxal xam nañ seen bopp dama ne ñu nar suba organiser élection président assemblée nationale du Sénégal dañ leen bëggoon nekk xamal ne ni que bii mooy quatorzième fois bu assemblée nationale di di di procéder ci exercice bu mel noonu kon nag bu fi kenn indi lu fi musul am bu fi kenn jéem a def lu fi musul am parce que wax naa ko suñu taxawaay ci assemblée nationale bu ci kenn am xel ñaar. day nekk taxawaay bu ànd ak fulla bu mat sëkk fayda bu mët sëkk ak yéene ak yaakaar ci suñu askan ñu ngi leen di gërëm di leen di sant jërë ngeen jëf mbokk yi